jaa ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu fu ngeen mën di nekk ci àddina bi ñu ngi ak euh, président Arfan Diédhiou euh, fii mu jiite yi nekk Argentine def naa ñuy topp internet bi jamono bi da ngeen gis ni Argentine yëngu na ci wàllu jaaykat yi ak police yi jaaykat yi ak euh, municipal bi jaaykat yi ak espacio bi yëngu na def naa fu ngeen toll yéen a ngi suivre li ci xew kon loolu la ñu war a waxtaanee tey ak président Arfan Arfan ñu ngi lay nuyu. Euh, Gora maa leen di fay euh, di leen ziar bu baax a baax di leen baal àq te di sax ngeen baal ñu àq ci koor gi di ñaan yàlla nañ ko fekkee ay déwéni déwén euh, di remercier Sénégalais yëpp di leen ziar aussi te di leen baalu àq aussi te di leen baal àq comme ni nga ko waxee léegi wax dëgg yàlla am na ay événements yi fi jot a xew yu yu xaw a doy waar yoo xam ne wax dëgg yàlla metti nañu képp kuy sénégalais rek euh, képp kuy doomu aadama sax euh, boo xoolee li fi xew ak li daal ci kaw sénégalais yi wax dëgg yàlla di nga am lu la lu la naqari euh, mais balaa muy ñëwaat ci loolu ngeen baal ma ma def benn rappel bu ndaw <coughs> parce que fan yi nii dafa mel nañ ko xaw a fàtte te lu am solo la mooy suñu jigéen bi nga xam ne moo génn àddina ci fan yi fii ci Argentine ñu koy jaale jëkkëram ak ay mbokkam Euh, muy mu doon tiis boo xam ne wax dëgg yàlla euh, dal na ci kaw euh, sénégalais yi nekk biir Argentine comme ni koy faral di defee aussi chaque fois bu yu mel ni xewee yàlla na yéex toujours dañuy laaj sénégalais yi seen collaboration parce que bu ñu aussi képp ku fi wàññeeku rek ñu mën la waaw ñu mën la delloo Sénégal su ko defee ñu mën la fa rob waaw soxna soosu nag eh, daf nekkoon ak jëkkëram te bi muy génn àddina bàyyi fi tout tànk donc wax dëgg yàlla ñun ci association bi aussi ñuy lancer appel di lancer waat appel sénégalais yi parce que keroog defoon nañ benn message jàllale ko ñu ngi te ba léegi affaire dafa mel dafa xaw a yéex waaw donc ñu ngi lancer waat beneen appel sénégalais yi ñu joxe seen participation ku nekk fépp foo nekk rek am na ñi nga xam ne mën nga leen jox sa participation su ko defee mu yegsi ci association bi. Euh, waaw ñu mën ko yóbbu Sénégal parce que comme du kenn ray ko yu demee noonu dee naturel la am na yaakaar ne tramité bi du yàgg donc te bu paree rek wax dëgg yàlla euh, dinañ ko yóbbu Sénégal te ñëpp xam nañ ni fu mu toll nii ak dollar bi fu mu toll ak yooyu affaire yi dafay cher dafay trop te il faut que Sénégalais jàpp ci parce que aussi bu ci jàppul rek du du baax waaw donc euh, appel boobu laay lancé Sénégalais yi dëgg yàlla ku nekk fépp foo nekk. nga fexe sa participation 300 pesos yegg si boo yorul 300 pesos loo yor rek xeebuñu ko su ko defee ñu mun ko dajale ñu def ko comme ni ñu ko daan defee incha allah bu neexee yàlla. appel mi ngi noonu defe naa mbokki daañu ko dégg soxna la bu gaañu tey it war nañ ko yóbbu Sénégal dollar bi nag fi mu toll tax na ba lu bari moo koy def euh, kon ñu fàttali ni rek euh, ni kenn ku nekk war nañu def 300 ñu fànnoo ko. Euh, tudd nga kooku noonu mais am na ku ko jiitu koo xam ni it gaañu na fi ci ay conditions yoo xam ni it na doy waar ba nii demagul Sénégal. ñu bari it ñi ngi laaj nii foofu kooku noonu ay deuxième fan la toll. waaw c'est vrai am na ko fi génnoon ànd yaakaar naa ci janvier bi la woon euh, moom aussi ba léegi mi ngi fi moom am na lu ñu jotoon a laaj am na lu ñu ci jotoon a joxe euh, kooku nag comme niñ ko xamee du dee naturel maanaam dañ ko boom dañ ko rey te ñëpp xam nañ justice réew mi nu muy doxee maanaam du ñu bàyyi corps bi génn dëkk bi tant que ñoom parewuñu seen i investigation. Euh, donc ñun affaire boobu ba léegi ñu ngi koy topp ñu ngi koy topp yaakaar naa semaine passée rek euh, demoon nañ fa ba am nañ fa ay résultat xëy na yu ñu fa jëlee euh, comme quoi que maanaam ñu defoon jëf ji ñaaw jooju am na kenn koo xam ne yàlla def na teg nañ ko loxo donc comme ñaar la ñu woon kenn ki teg nañ ko loxo donc ñu ngi continuer ci enquête bi ñu ngi continuer ci investigation bi ba wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan juge bi aussi fu ñu toll ñu ngi koy ñaan pour mu libérer corps bi ñu mën ko yóbbu Sénégal mais yaakaar naa képp ku nekk Argentine xam na juste Argentine nu muy demee dafa xaw a yéex euh, donc problème yi mel noonu xëy na dinañ soxlawaat euh, corps bi pour yenn autopsie yi moo tax duñ ko nangoo gaaw a libéré mu génn dëkk bi pour xëy na buñ ci soxlaa dara yu demee noonu loolu moo tax boobu léegi mi ngi fi. mais cas bi ñu ngi koy topp ñu ngi ci bis bu nekk ñu ngi wax dëgg yàlla waaw enquête bi wax dëgg yàlla euh, bon am na kenn koo xam ne wax dëgg yàlla teg nañ ko loxo ci non xam nga loolu aussi du loo xam ne dañuy ñëw nii rek wax ko loolu dañuy bàyyi justice def liggéeyam euh, am na yoo xam ne aussi ñoom duñ ko wax noonu rek quoi parce waaw Euh, bi ñu tàmbalee ñu ngi koy tudd yëngu gi ci Argentine defe naa image bi nga xam ne moo génnoon ci benn marchand bi la bu doon jàppanteeg policier mu gis ni it loxoom dafa dagg di génn deret ju bari terewul it police mi ngi wéy di ko fitnal mu nekk loo xam ni it addina bi yëpp ñu ngi koy ñaawlu loolu ñaakaar naa yéen da ngeen def ay jéego waxtaan ci ak ñi ngeen ci war a waxtaanal ba xam lan la woon dëgg. waaw c'est vrai euh, liñ ci seetlu fan yi bon du gulet aussi du c'est première fois yàgg na fi am. Euh, maanaam confrontation entre sénégalais yi nekk ci mbedd mi ñuy jaay ci mbedd mi marchand ambulant yi ak euh, police bi ak espace public bi euh, maanaam sénégalais biy jaay ci mbedd mi mbedd mi la am pour dund. yaa ngi bi ak waa espace public aussi mën naa ne mbedd mi la am pour dund parce que seen liggéey ci lañ leen di fay ñoom ay nit la yoo xam ne aussi dañ leen di yabal pour ñu dem raxas mbedd mi maanaam bu kenn nag bu kenn jaay ci mbedd mi. te umpul kenn ne euh, njaay mbedd dafa am loi bu koy tere fii ci Argentine euh, loolu moo tax ñu teg ay takk der euh, pour ñu jëlee ñëpp ñi nga xam ne dañuy jaay ci mbedd bi kaaw Flores bi nag dafa di kaa bu xaw a doy waar bu xaw a doy waar boo xam ne wax dëgg yàlla naqaru nañ ko baax a baax suñu compatriote ba nga xam ne jëlee na ci ay gaañu wax dëgg yàlla nit koo xam ne dafa ñëw daan daan si dooleem ba lii fekku ci lii fekk ci euh, wax dëgg yàlla daf ñuy daf ñuy metti daf ñuy metti euh, mais aussi dañ ko xolaat ci beneen angle. mais bi mu leen am ngeen ci ay jéego yoo xam ne dox ngeen ko def porte plainte wala ngeen jéem a xam lan moo ko indi wala dara. waaw euh, loolu duñ ci mës jog te yaakaar naa suba amoon nañ rendez-vous ak secrétariat directeur Soumanos ak moom pour ñu ànd ak moom dem def déclaration ay dégg. Euh, bi ñu contacté avocat yi aussi moom ak ñi nga xam ne aussi euh, dañoo nekkoon ay victimes ci achanamiento yi aussi semaine bi normalement am nañu rendez-vous ak avocat pour ñu dem euh, def suñu déposition donc ay kaala yoo xam ne ñu ngi ci liggéey avocat yi pour topp cas amul benn cas boo xam ne day am fii par exemple ñun ñu tegg suñu loxo parce que même buñ ci mënul dara dinañ jéem parce que aussi newul ne xëy na association bi da ciy génnee loxoom wala demee lépp loo xam ne mën nañ ko ci def rek dañ ko ciy def waaw. ñu bari dañuy paral di wax ci commentaire yi ci mbedd yi même ci internet bi fii amuñu fi ambassade amuñu fi consul yéen yéenay lépp daanaka lu bari bari dañuy wax ne dañ leen di yàq a gis daal seen pression ak it yu demee noonu. waaw euh, critique yi moom critique yi moom c'est normal maanaam. Euh, critique yi c'est normal nit ñi critiquer ku ci nekk mën nga joxe sa avis am yow yaa libre nga quoi pour joxe sa wax li xalaat mais ñun cas bu nekk heure bu ñu ko yëgee même bu ñu mënul déplacé wu dama koy wax toujours même bu ñu mënul déplacé wu parce que aussi dañu waxante dëgg euh, du chaque fois lañ mën a déplacé wu ku ci nekk da nga yor sa liggéey xëy na am na moment bu mu lay toll fa fekk am na benn moment da lay fekk foo xam ne yow doo mën a déplacé wu mais toujours da ngay woo ñi nga war a woo ak ñi nga xam ne mën nañ déplacé wu ñu déplacé wu yaa ngi dégg même bu ñu déplacé aussi dinañ topp cas bi keroog bi achanamiento yi amee bi ñu xëyee suba def ay achanamiento ñeent ñoo amandoo ci même même même suba gi ñeent xaw ma juróom euh, xëy na jóg naa bàyyi naa li may def ma dem assiste am na ci yoo xam ne dem naa fa ne maa ngi woon Mitre euh, maa ngi woon aussi Alsina yaa ngi dégg mais mënu ma dem fépp euh, ñu ngi doon jokkoog aussi yeneen avocats yi avocats défenseurs yi de la Ciudad kenn ki mi ngi woon Hippolyte Yrigoyen donc ñu ngi doon coordonné di xam ku nekk situation bu nekk fu mu toll waaw yaa ngi dégg bon ñoo xam ne du ñu gis benn lieu ñu ne non ñu association bi ñëwuñu ñu fi waa association bi ñëw ñu si mm-hmm. xam nga fekk euh, benn wala ñaari nit mënuñu dem fépp mm-hmm. xam nga mais li ci am solo mooy ñu ngi koy bàyyi xel kaay yëpp ñu ngi koy bàyyi xel parce que aussi mm-hmm. euh, acharnement bu amee même boo demee teew doo mën a dugg doo mën a génn kenn du mën a dugg kenn du mën a génn waaw li ngay def mooy dem teew xool ndax ñi ñëw def acharnement yor nañu ordre ordre judicial yaa ngi dégg judicial wala yoruñu ko yaa ngi dégg yooyu yëpp dañuy dem jéem ko saytu ak yu demee noonu. waaw lool waaw bi ñu demee saytu ko keroog bi ma fa nekkee d'ailleurs euh, am na syndicaliste yoo xam ne seen i avocat ñu ngi foon ñun ñoo fa nekkoon euh, ñu xamal ñu ne dañu am ordre judicial maanaam juge moo leen permettre ñu def achanamiento yi ci kanam dinaa dellu si lan moo waral achanamiento yi waaw donc euh, achanamiento lépp lu mu ci def rek lépp lu ci war a def mu ngi ko ciy def xëy na nag. Euh, ku ci nekk da ngay bëgg xëy na ci moment bi association bi teew kenn ci bureau association bi teew mais yaakaar naa ni comme ni may faral di wax toujours sénégalais ñun ñëpp ay ñun ñëpp ci association bi lañ. yaa ngi ñëpp ñun ñëpp association bi lañ quoi association bi moomu ma ko keneen moomu ko xëy na dañ ma jiital yàlla moo def xëy na ñu jiital ma mais képp ku fa teew rek war nga fa mën a teewal association bi waaw. waaw li xew bu ñu ci ginnaaw ñi nga xam dañ fi ñëw di immigré bu ñu ñëwee ku leen neex ñu lal. ñi fi nekkoon loolu lañ fi bàyyi changement nag am na léegi ndax loolu yéen ñi nga xam ne yéen a fii état avant lii di am taxaw na nag yéen kenn ne leen am na benn loi boo xam ne dafa génn jëm ci Sénégalais yi pour lii bu ko defee mën a leeral ñi nga xam moom moom leen jiite ndax état bi def na loolu. waaw li ñu leen mooy euh, du loi bu jëm ci Sénégalais yi maanaam loi réew mi réew mi ñoo voté loi boo xam ne loolu yëg nañ ko ñëpp yëg nañ ko ne njaay mbedd délit la kenn warul jaayati ci mbedd. mbedd ñi nga xam dañu nekk ci ay galeria boo xoolee tey bi nga ñëwoon fële nga xam moo di onse ci ay galeria lañ dugg jàpp fay ay bagage waaw loolu moo taxoon ma ne ñëw tuuti quoi li waral achanamiento yi ak li waral ñu dugg ci galeria yi parce que boo seetloo achanamiento euh, duñ ko préparé ci benn fan wala ñaari fan wala ñetti fan achanamiento dañ koy préparé mën nañ ko préparé at wala ñaari at ñu leen di suivre yaa ngi dégg mm-hmm. bi di rassembler ay preuve di rassembler ay preuve ba mu yor lu ko doy mu ne leen dem leen ngeen defal ma achanamentu li lieu boo seetloo euh, bi Macri faloo weeru njëkk yi conteneur yi jóge woon Chine conteneur chinois yi dañ ko bloqué woon ci port bi li tax ñu bloqué ko ci poor bi parce que Macri dafa ne dootu dootul dugg ci dëkk bi te chinois yoroon ay conteneur marque muy ay milliards yu milliards bi mu yegsee ñu bloqué conteneur yooyu chinois yi lu ne def nañ ko ba seen gouvernement intervenir na mais Macri ne bagage yooyu du dugg ba yaakaar naa léegi euh, boo demee ci onse bi chinois yi presque jaayatuñ marque yaa ngi mm-hmm. mooy single bi nga xam ne Sénégal dañuy wax ni ñun la ñu. waaw xam nga Sénégal dañ yaakaar ne euh, ñun la mais boo gisee ñu ciblé ñu ñun cette fois ci ci problème boobu parce que xëy na mën naa ne ci ñun la mm-hmm. parce que gouvernement bi bu bu gisee ne marque dugatul ci port bi. mais mu gis ne sénégalais yi ñu ngi jaay marque ci mbedd bi ñun ñoo yor marque pratiquement di jaay ci mbedd boo xoolee dàll yi pirwaan dinañ jaay dàll euh, dàll marque mais ci galerie yi lañ koy jaay ñun ñoo yor suñuy dàll par exemple di ko jaay ci mbedd bi Adidas Nike yëpp yaa ngi dégg ay saak yooyu yëpp di yoo xam ne lépp marque la ñu koy jaay ci mbedd bi ñu ñuy romb te nëbbatuwuñu moo tax su loo lépp loo gis rek sutura daf ci baax te nëbbatuwuñu dañ ci yor quantité di ko jaay ci mbedd bi donc tubaab bi euh, gouvernement bi dañuy wër di xool dañuy gis bu ñu gisee ni sénégalais ñooy jaar bu ñu ne mais ñun sénégalais dañ leen war a topp xool te bu ngeen fàttalikoo euh, yaakaar naa chaque presque chaque semaine ak yooyu ñu ñu jot ay information comme quoi que jàpp nañ benn sénégalais ci frontière bi ak ay bultu dàll wala ay bultu saak wala yu demee noonu ñu ne kon sénégalais ñooy dugal fraude ñooy dugal marque yi ci dëkk bi donc nañ leen suivre yaa ngi ñu ñuy topp ñu ñuy topp di ñu photo di di duggante ak ñun di jënd suñuy bagage ak ñu demee noonu di photo di di di di enregistré di filmer yaa ñun nag duñ ci yëg dara ñun yaakaar nañ rek suñu daal yi ñuy jóg noonu di jaay amul benn problème fekk ñu ngi toog ñoom di def seen enquête duñu yàqamtiwuñ état yàqamtiwul yaa ngi dégg boo xoolee ci mitre bi euh, chaque jour mu am problème ak policier yi gars di jaay noonu ci ci ci buntu galeria yi te ñoom li ñuy taxaw foofu di seetlu yëpp am na ñoom yu mel ni ay jëndkat te ay policiers lañ. yaa ngi dégg gis nañ ni gaa yi ngi yéeg ci kaw galerie yi di wàcc ñiy jaay noonu ci biti am nañu ciy yéeg di wàcc yaa dégg nañ ni galerie ci kaw aussi am nay bagage yu fa nekk donc ñoom dañuy ne ñi ne ci biti ñi ci ñi ci kaw ñoo leen di fournir bagage yaa ngi dégg ñi ci kaw ñooy jox ñi suuf bagage ñuy jaay ñu ngi dégg ñuy rassembler ay preuve di gis nit ñi di yéeg di wàcc fu mu toll nii boo demoon tey ci table juge bi bu ñu la wanee ay photo yoo xam ni yow sa bopp da ngay yéemu lii kañ lañ ko photo ak kañ lañ ko jël yaa ngi dégg ak vidéo bi kañ lañ ko def fekk ñoom dañuy jël seen temps di def seen enquête yàqamtiwuñu parce que xam nañ lu mu yàgg-yàgg dinañ dal suñu kaw yaa ngi dégg donc affaire yooyu dañ ko orienté ci sénégalais yi parce que gis nañ ñun ñoo koy jaay te ñun lañ ciy jàpp ci frontière bi est yaa dégg donc loolu moo waral bis bu ci paree li muy def sa dossier am mu ordonné achanamiento ne dem leen ngeen jëlal ma bagage yi fa nekk yëpp ci place bi place bi place bi place bi yaa ngi dégg lu tax ma ne du sénégalais rek bu dee beneen investigation des fois dañ koy jaarale ci Perouane yi wala ci Boliviane yi yaa ngi nekk nañ galeria boo xam ne dugg nañ fa laalu laaluñu sénégalais mais dañoo ñëw ci Perouane yi nga xam ne dañuy jaay dàll marque en général ñu jël bagage yëpp bàyyi fa sénégalais donc cette fois ci dafa tombé ci ñun parce que enquête bi ci ñun lañ ko orienté te ñun am nañ ci part de responsabilité yaa ngi dégg loolu aussi foog ñoo ko dëkk bu amee yoon am loi ne bu leen jaay ci sama mbedd bu leen jaay marque. ñun bu ñu koy def rek ñu ngi tooñ bu ñu koy def ñu ngi tooñ mais ci kaw tooñ boobu mën nañ ko négocier mën nañ maslaa ba xëy na waa dëkk bi am na ñoo xam ne am nañ yërmande yaa ngi dégg mais bu ñu ci boolee xeex ak policiers yi yaa ngi dégg xëccoog ñoom wan leen ni xëy na ñun suñu droit la euh, dañu def erreur parce que ñoom bu ñu utiliser seen doole rek ñun ñooy gaañ yaa ngi dégg. loolu it am na loo xam ni nekkul yoon ci ni nga ko waxee bi ñu dugg bi nga xam moo nekk ONCE. am na place yoo xam ne bi ñu ci duggee dañu laaj seen borom ne leen fay leen ma tel ma baal la fi leen li ci bagage da nga jóg ni da ngay défendre marqué da nga koy dañ koy tere maanaam ci biir dëkk bi ñëw nga fekk place ne fa laaj xaalis ñu jox la nga dem bàyyi fa marque est-ce que kon dafay tekki ni maanaam jaaykat moom dafa jàpp ne ñii lii ñuy appliqué wérul non xam nga loolu loolu loolu système corruption la loolu ñoom ñu koy policier bi koy def bu ko ay supérieur mu jàppee dañ koy tëj yaa loolu loolu ngeen jamee preuve du ngeen jóg dénoncer loolu pour état bi réew bi xam ko. ñun lépp lu ñu ci am preuve bu bépp preuve bu ñu am dañ koy dénoncer mais tey boo demee dénoncer ko te yow amoo preuve bi. yaa ngi dégg loolu mi ngi fi ko def ñoom ñi ngi taxawoon nii ñu ngi nii man ñu ngi nii. moom laa lay wax noonu. am nga enregistrement boo def wala filmer wala yooyu buy wane ni waa ji mu ngi lay laaj xaalis. Hmm? mais ne man lañ laaj xaalis maa joxe loolu kay. xam nga euh, bu ma leeree ne yow yaa rey par exemple dama lay jox exemple mooy la kii te aw ma preuve buy wane ne yaa ko duñ la mus a tëj yaa dégg maanaam bu nit ñee di ma corrompre nga enregistré ko yaa ngi dégg nga enregistré ko wala nga filmer ko ñëw teg ci table bi preuve ne kii kat dañ ko filmer muy corrompre wala muy kii mais bu dee dama ñëw rek wax ne kii daf ma laaj xaalis mën na juge bi mën na ne man dama dama bëgg défendre sama bopp rek moo tax ma wax loolu mais loolu amul yaa dégg man moo tax preuve moo tax ma du yónni nit rek ne ko demal defal ma achanamiento fële ci kii bi da lay topp ay at ba am ay preuve yi mu teg table tey boo demee laaj bi mu génne la preuve yi teg est-ce que teg beneen aussi beneen cas aussi boo am mooy achanamiento yi ñuy dugg ci kër yi waaw euh, duggulet xam nga yàgg nañ ko fi def mës nañ fi jàllale message ne Sénégal yi def attention parce que aussi ñu xool suñu dëkkuwaay yaa ngi dégg euh, parce que aussi dëkk boo ci nekkee da ngay seetlu xoola Piroane yi ak Boliviane yi bu njëkk bu njëkk dañ daan ñëw benn édifice rek ñoom ñëpp ñu dëkk ci ñu xaw leen rey ci ay achanamiento yaa ngi dégg di jël seen i bagage leen def mais léegi ñoom dañuy tas yaa ngi mais ñun tey bu ñu demee quinze personnes wala dix wala vingt personnes dëkk ci benn benn édifice waaw ba trente cinq personnes ñu dëkk ci benn édifice ku ci wàcc yor sa benn carreau am ay dàll marque yu ci nekk ay saak ki yor ay kii affaire marque yaa ngi dégg ku ci nekk bagage yoo xam ne amul facture ñëw dugg ci kër gi am na ñu ñuy topp ñoo xam ne des fois sax dañuy nekk ay taximan yaa ngi parce que renseignement généraux yi dañoo garaaw yaa ngi nit mën na ñëw sax mel ni kuy client buy jënd dàll wala yu demee noonu doo ko xam dañuy filmer ba xam lépp lu ñuy def suñu mouvement yaa ngi dégg fii 30 personnes ñoo fi dëkk dañ koy xam ku ci nekk yaa ngi yor benn saag def ci ay dàll wala ay kii ñu xam ne dañ koy considérer comme dépôt dépôt yaa ngi dégg su ko defee juge bi day biñ fi nekkee ba léegi est-ce que gis nga acharnement yoo xam ne appartement wax ne deux wala trois personnes ñoo fa dëkk waaw day fekk ay sénégalais yu bari dëkk fa yor ay bagage yoo xam ne dañ koy tere wala ay bagages yoo xam ne amul facture yaa ngi ñëw dëkk fa su ko defee groupe boobu bi ñu fay groupe noonu yor ay bagage yoo xam ne dañ koy tere te comme ñoom dañuy xeex njaayu mbedd bi ak njaayum euh, kii bi nu tudd marque bi mais dañuy attaqué foofu yaa dégg dañuy attaqué te buñ fa yegsee achanamiento buñ fa yegsee ñoom yoon may na leen maanaam ñiy def achanamiento bi yoon may na leen lépp luy portable lépp luy xaalis lépp luy bagage ah ñu jël ko yóbbu parce que euh, booy fraude loolu même Sénégal sax am na fa booy fraude yor sa oto di fraude ñu def ñu ñu ñu jàppale ak fraude oto bi sax dañ ko war a confisquer bu leen neexee xaalis bu nekk ak yow sax dañ koy jël maanaam loolu mooy yoon parce que dañuy xalaat ne dañuy ñaaw njort ne xaalis bi ak oto bi yëpp fraude bee tax nga am ko léegi donc yoon la bu ñu yegsee ñoom maanaam euh, loi bi leen ko may quoi bu yaakaar naa même ñoom bu ñu laajee avocat yi leen défendre sax dañ leen wax ne lii yoon moo leen ko may. yaa dégg lépp lu ñu fa fekk dañ koy jël investigar yaa ngi dégg ordinateur yi dañuy jël xool xool ci ordinateur lan moo ci nekk yan genre message moo fay jàll portable yi ñu xool waaw lépp ñu contrôler lan moo fay jàll yaa dégg parce que xëy na business beeg yooyu ci téléphone yi lañ koy def yooyu yaa ngi dégg chaque jour ñu gis ci télé bi ñu jàpp ay trafiquant de drogue ak yooyu ñu teg xaalis bi nii teg portable yi teg arme yi teg lépp yaa dégg moo tax lépp lu fa fekk am nañ droit yóbbu bu ñëw ci leneen maanaam 4000 euh, Sénégal dañu koy xayma ñuy wax na sax ëpp na ko ci li nga xam ñoom ñoo fi nekk te bu ñu xoolee 90 pour cent yëpp ci mbedd mi la ñuy jaayee amu ci tey koo xam ni mën nga xëy suba rek dellu Sénégal ci noonu noonu fii la ñu nekk te it xëy suba liggéey yi mënul ñàkk ndax yéen xalaat ngeen négocier ak état bu ko defee ñu jéem leen wutal yeneen solution moo xam comme bu ñu xoolee sax au début bi nit ñi door a yëkkati Flores OMS amoon na benn programme boo xam ne gis nañu ci ab askan maanaam ñenn ñoo xam ne tey am na fu leen yóbbu ba ñu bari ñàpp ni sax ñun dañu manqué ay taxaw ba moo tax ñuy continuer di jaay ci mbedd mi ba léegi. waaw xam nga aussi loolu li nga wax noonu am na solo trop quoi parce que ñun comme ni ma la ko waxee association bi li ñuy def nii dañ koy def pour ñun ñun ñun toogaluñu fi nguuru Sénégal ñun ñu ci biir sénégalais ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñun ñu nekk fii ñun dañuy défendre sénégalais yi fii biir Argentine parce que tey acharnement bi am noonu man mën nañ xëy suba ñu ñëw sama kër jomb ma quoi. parce que man sénégalais laa ñoom considéré nañ ne man sénégalais laa suba mën nañ xëy suba ñu ñëw sama kër parce que ñun ñi di wax ak yow nii ñun ñu ne ci yu jiite association bi suñu téléphone yëpp boo matul ñu ngi koy déglu yaa ay risques la yoo xam ne mënoo jiite mbooloo ba pare état bi du bàyyi xel ci yow yaa dégg donc ay risques yoo xam ne ñun dañ koy jël mais xëy na euh, jaral nañu ko parce que ñun ñoo fi nekk ñun ñoo fi nekk il faut ñu jàppalante suñu biir yaa dégg donc euh, ci li nga wax noonu boo seetloo waa ONCE bi ñu leen fi yëkkatee am na benn programme bu ñu fi tëraloon ñu jëloon liste ne léegi Sénégalais dañuy ñëw jàng yaa ngi dégg xaw ma deux mois mais mois bu nekk dañ leen di fay xaw ma onze mille na ñaata Sénégalais bi ñu leen laajee dañu ne ñoom jàngiwuñu waaw. fekk na yéen defoon war a def ba gëstu ba xam ne lii dëgg la ngeen ñëw tegaleen programme boobu seen loxo. mais Pirwaane yooyu am na ñu jàngi am nañu jàng ñu fay leen mais sénégalais ñun par exemple dañoo xeeb xëy na ñu ci bari dañoo xeeb som boobu yaa ngi dégg mais nangu ñu jàngi mais am na yoo xam ne da def am na xam ne sacrifice la laaj yaa dégg boo xoolee ni sa intérêt ngi ci def benn sacrifice bu ndaw parce que aussi nit ku la bëgg jëlee ci mbedd mi jox la ay proposition nga ne buggoo ko day xaw a doy waar quoi est yaa dégg day xaw a loolu kenn mënu ko défendre maanaam boo delloo suba di leen laaj dara dañ leen mais yéen yéen yéen bëggu leen dara wala yu demee noonu xam nga donc day xaw a jafe donc euh, ñun aussi ñoo war góor góor góorgóorlu xam ni euh, état bi bu ñu proposé joxe yenn proposition yi xëy na départ bi du du yomb amul nit ki mënoo xëy rek di laal ay millions am na étape yooyu jaar yaa ngi dégg am na ñoo xam ne demoon nañ def formation bi ñu jox leen seen i diplôme yaa ngi dégg après ñu wutal leen fi ñu nekk mais ñun dañoo lànkoon ne duñ jàngi yaa dégg am na ñu ci interroger ñu ne ñoom demuñu parce jëloon nañ liste loolu aussi wax dëgg yàlla. Euh, bu gars yi dellu si waatee encore di critiquer ñun lan moo tax joxuñ ñu place te yow dañ lañ la jàngil jàngiwoo yaakaar naa yenn wul maanaa ko léegi programme lu jëm ci wàllu impresario yooyu it ndax xalaat ngeen ci pour jéem a négocier pour mu yomb ba ku ci jógoon tey di wuti liggéey maanaam Procréa bi nga yor rek nga man ci am liggéey comme ni nga ko bëggee. waaw euh, loolu bi ñu toogee mës nañ toog euh, man ak Moustapha Sow ñoo fa demoon immigration am euh, réunion ak gars yi yaa ngi léegi parce que moment bu ñu ngi doon xool ñu ngi doon négocier gars yi nan la ñuy def ba régulariser maanaam sénégalais yi fi nekk te yoru ñu këyit ñu jox leen këyit yaa dégg képp ku ci yor précaria aussi boo demee wut liggéey ñu jox la liggéey yaa ngi dégg te précaria am na foo xam ne boo ko présenté ñu jox la liggéey am na ñu am na ñuy liggéey tey te précaria lañ yor yaa ngi dégg euh, mais xëy na daf ci am ñoo xam ne xëy na bëgguñu liggéey yaa dégg loolu aussi ku nekk ak sa sa choix la quoi yaa xam li nga li nga li nga bëgg yaa ngi dégg programme boobu ba am na benn programme bu bu ñu doon préparé bu waa immigration doon defar boo xam ni dina ci am ay formation ay volets yoo xam ne formation lay doon sénégalais dina leen former yaa ngi dégg ci ay kii yu bari quoi yaa dégg aussi ñu ngi doon wut ay partenariat ak yenn écoles yi pour que sénégalais aussi dem di former wu sénégalais dem di jàng espagnol yaa ngi dégg mais da ngay dem négocier benn da ngay négocier benn affaire ba pare deux personnes dem wala yaa ngi am na benn école bu ñu defaloon gars yi jox ñu ay professeurs yoo xam ne espagnol mhm. ñu lancé message bi ay deux personnes ñoo dem trois personnes gars yi nañu léegi lii jaru ko quoi parce que aussi du ñu fay professeur ba pare mhm. pour muy jàngal deux personnes wala trois personnes moo tax aussi am na yoo xam ne ñun ñoo deful effort bu ci war yaa ngi dégg mais buntu moom ñu ngi koy wut mhm. am na nay buntu yoo xam ne nit mën na fa jaar ba ba am dara yaa ngi dégg bu ñu bëggul def effort boo xam ne par exemple jàng dafa am solo yaa ngi dégg mënoo ñëw ci dëkk rek ne léegi du ma jàng quoi mais damay bëgg a accéder liggéey wala leneen du ma jàng yaa ngi dégg jàng espagnol bi sax dafa am solo jàng espagnol bi rek dafa am solo déjà pour commencer yaa ngi donc aussi comme ni ma ko waxee il faut ñu def effort ñun aussi quoi comme li ma wax toujours ñun bu taxawee ci kanam tubaab yi dinañ défendre Sénégal yi waaw même lu dul dëgg sax nañ ko jéem a défendre. mais nag bu ñu nekkee ñun entre sénégalais suñu biir nañu waxante dëgg quoi yaa ngi dégg nañu waxante dëgg pour aussi ñun ñu changer suñuy comportement changer suñuy jikko yaa ngi dégg ñu def benn effort boo xam ni pour ñun la quoi pour nit ñi respecter ñu yaa ngi dégg parce que daf ci am solo ñu xool communauté sénégalaise bi respecter communauté sénégalaise bi yaa ngi dégg parce que am na yoo xam ne jaru ko yaa ngi dégg muy onse muy flores li ñuy def par exemple di xëccoog policier ak yooyu euh, bi ñu waxtaan daaw ak waa immigration demoon nañ ba comme ni ma la ko am na plan boo xam ne wax dëgg yàlla demoon nañ ba sori ci affaire régulariser situation sénégalais yi bay wut ay kii de formation yoo xam ne après sénégalais dinañ leen fa mën a insérer c'est-à-dire mais biñ ci jógee parce que ñun dañ leen ne woon wax dëgg yàlla euh, sénégalais xëy na bu ñu amee loolu dinañ jógee ci mbedd bi mais ñu dem ba ci biir gis ne sénégalais yi dañ gën a nekk ci mbedd bi pare dañ fay nekk di xeex ak policiers dañ fay nekk di xëccoo yaa ngi lu ñu tere duñ ko nangoo def du ñu respecté loi bi chaque deux jours ñun ñu ngi ñuy wax ak ñun chaque deux jours ñu woo ay tribunal wala ci défenseur ak yooyu pour dem di assister Sénégal yoo xam ne ñu ngi ak ay kawsa yoo xam ne yu dul jeex te majorité bi yëpp précaria lañ yor wala ñu nangu seen précaria wala sax amuñu directement précaria yaa ngi donc yaakaar naa ku amul kayit ci dëkk nga yor précaria wala yoroo précaria wala deme noonu yow yaa war a gën a moytu ko ku yor document parce que su situation moo gën a xaw a doy waar te yow nit ñi yow la ñuy xeexal xëy na pour ëllëg nga nekk ci situation bu régulière maanaam ñu jox la sa document mais nag koo xam ne yaa ngi koy xeexal loolu ba pare moom mu dellusiwaat def yéen yi day xaw a jafe quoi moo tax ñoom seen bopp dañoo dem ba mu yàgg ñu taxaw quoi ne mais yéen lii lan la quoi. ñi nga xam ne amuñu këyit sax ñoom pratiquement ñoom ñooy indi kilombo yi yaa ngi dégg ñu muy indi kilombo yi donc day xaw a doy waar quoi ñun day xaw a difficile des fois pour ñu ñu mën a lograat dara mais ñu ngi continuer ci affaire boobu yaa ngi dégg ñu ngi di xeex pour que bépp sénégalais bu nekk fii ci réew mi nga mën a am sa document yaa ngi dégg lépp loo bëgg def boo bëggee formé wu nga formé wu lépp loo bëgg a def nga def ko loolu duñ ci jóg te ci la ñu nekk bon am na nag xëy na ñu yaakaar ne association bi xëy na ci leneen nekk léegi mais loolu amul ñu bari dañuy wax ne dañuy manqué information ci lu bare bari dégg ñu làng bi bu doon seetaan télé tey du xam lan lan moo xew ndax yéen matul ngeen jël programme boo xam ni it da ngeen di déplacé wu di dem ci kër yi di leen sensibiliser li mooy loi yi lii la ñu war a def loolu seen rôle la yaakaar naa. waaw loolu c'est important li nga wax noonu am na am na solo am na solo trop te suñu bëgg-bëgg la quoi aussi di dem di fekki Sénégalais yi fi ñu nekk xam nga di. leen jox information yi di jàllale information yi mais aussi comme ni ma ko waxee rek euh, nit ki da nga war a dem vers l' information maanaam bul xaar toujours information bi di ñëw ci yow yaa ngi waaw yow da nga war wuti information yi parce que yow lay jariñ yow yaa ko soxla bul toog toujours rek di croiser les bras di xaar am na ñoo xam ne bu ñu amee buñ ñu soxlaa dara dañ may woo wala ñu woo Moustapha wala ñu woo keneen ñu laaj nit ki boo xamul toujours da ngay laaj yaa boo xamul da ngay laaj parce que aussi comme ni ma waxee sànq. Euh, fii ñëpp xam nañ dëkk bi nu mel xëy na temps bi doyul yaa ngi dégg ñiy def loolu euh, dañoo volontaire volonté la quoi dañoo volontaire pour def loolu yaa ngi dégg donc xëy na temps bi du doy pour ñu def yenn déplacement yi bien que war nañ ko def te bëgg nañ ko def du question bëgguñu ko def mais bëgg nañ ko def yaa ngi dégg mais aussi nit ki Sénégalais bi si boppam boo nee cëpp ci dëkk bi sax da nga war a laajte fan la association bi nekk fan la daayira yi nekk nga bokk ci groupe yooyu yaa dégg mais bul toog rek jàpp sa njàmbur yaa dégg boo ñëwee ci daayira yi loo xamul nga laaj yaa ngi dégg loo xamul nga laaj man li man par exemple lu as néew li ma xam ci ci mbirum këyit ak yu demee noonu jàngu jàngu moo kenn jàngaluma ko dama ko gëstu dem di laaj bu ma xamul ma laaj yow bu ma xamul dara dama lay laaj tey boo ma wooyee laaj ma dara bu ma xamul euh, bu dee am na ku ma ci tane Moustapha moo ci tane wala Paate moo ma tane wala keneen moo ci tane dama koy woo ne ko laaj information yaa ngi dégg su ko defee ma mën la jox réponse bi nga soxla yaa ngi dégg moo tax il faut aussi ñun ñuy lu quoi di ñëw vers l' information ñu ñëw jege si ñëw laajte fan la association bi nekk fan la daayira yi nekk. loolu it ndax du manqué sees mooy taxit ba nit ku mën a déplacé boo xam fan lay jëm pour gëstu loolu matul woon nit ngeen jël sees bu laajee sax ngeen jël koo xam ni moom moo koy féete ñu di ko fay information boo xam ni nit soxla na ko bu ñëwee mën ko fekk foofu. waaw loolu Euh, yaakaar naa vice président Babacar Mbaye euh, lu ko cher la woon loolu lu mu bëggoon la quoi maanaam association bi am siège ba boo seet loolu lancé woon nañ fi benn message pour laaj sénégalais yi ñu collaborer ñu jàppale association par exemple 300 pesos 300 ñu def ko benn siège boo xam ne du man lay jariñ wala keneen sénégalais yëpp lay jariñ sénégalais yi xam ni fii mooy siège association bi ci lañ doon laaj 300 pesos 300 pesos mais xëy na tey boo xoolee sax est-ce que li ci nekk mën na 2000 pesos ñi joxe. yaa ngi dégg carte de membre yi fii dañ ko fiy jaay nit ñi duñ jënd euh, loolu sax dafa may permettre mu aborder beneen question euh, boo xam ne dem nañ ba ñu ciy jéebaane yaa ngi dégg maanaam ñiy defar passeport ak ñiy defar carte buñ fi ñëwee euh, buñ fi ñëwee toujours dañuy laaj sénégalais benn participation boo xoolee passeport bi ñu fi ñëwee association bi moo demer wut ay salle ak yu demee noonu ñu luwee ko seen dégg am na ñoo xam ne dañuy ñëw jàpp ci liggéey ay sénégalais yuy liggéey fii yuy xëy di gont dañ leen bàyyiloo seen liggéey ne leen ñëw leen ngeen jàpp ci liggéey bi yaa dégg pour jariñu sénégalais yi su ko defee boo wàccee ñu yëkkati dara jox la mais ñiy déposé si par exemple am na ñoo xam ne boo leen nee joxal participation participation bi du forcé am na sax ñu dem ba ne ñun dañ doon exiger par exemple euh, xaalis 200 pesos ku joxewul 200 pesos doo déposé te mosuñu wax loolu message bi ñu ko fiy jàll dafa leer contribution la ñuy laaj ku yéene nga joxe ku yéenewul du dee di nga déposé te ñi fa ñëw ñëpp bañ a joxe déposé nañ mais contribution la pour association am loo xam ne dina ci mën a def yenn frais yi yaa ngi dégg ñi doon liggéey ñun comme ci quarantaine am na ñoo xam ne ñun ñoo leen jëlal suñu bopp heure bu ñu wàccee ñu yëkkati dara teg seen loxo. mais loolu man yoruma xaalis boobu keneen yorul xaalis boobu xaalis boobu sénégalais yi ñi ngi ñëw déposé si ñoo ko war a joxe ku ne joxe benn participation boo xam ni au moins affaire boobu nit ñi dinañ ko ci mën a réglé su ko defee sa. daa ni association bi rek mais sénégalais yi moom dañ ko seetaan ni ñu war a bindu ak a participer moom dafa des bu baax a baax. waaw dafa des bu baax baax dafa des bu baax a baax parce que euh, am nga mille personnes. 4000 personnes bu ko ne joxe woon par exemple at par at benn 100 pesos ñaata lay doon. xaalis bare bare la boo xam ne dinañ ci mën a am siège dinañ ci mën a am leneen lu dul siège yaa mais tey yu bari yow boo koy def sa xëy na des fois yaa génnee sa poche def ko yaa ngi dégg sa poche def ko parce que euh, ñun ñoo volontaire ne dañuy def loolu yaa ngi dégg moo tax euh, toujours dañu ne Sénégalais ñu jéem a góorgóorlu quoi def waaw gën jàpp ci affaire bi. ok loolu def ay négocier ak état bu Sénégal ngir it euh, lu demee ne ambassade wala it consul wala it sax ba ñu jar ñu déplacé ñoom ñëw fii waxtaan ak état yi fii ngir it yaakaar naa bu fekkee dañ la danga ñëw nu nu la ci ëtt te xamuñu say waajur bu fekkee ne nag dem na ba ñu xam say waajur mën naa am ñu jàllale la ci biir loolu it yaakaar important. waaw loolu am na solo euh, consulat wala consul honoraire yàgg nañ bind sax yàgg nañ def ay dossier envoyé ko. ci gouvernement bi pour ñu defal ñu fi benn consul honoraire sax bu ñu mënul am ambassade sax ambassade sax ñu am consul honoraire loolu yàgg nañ ko xeex te ba léegi ñu ngi koy xeex te ay semaine ci ginnaaw ministre des affaires étrangères maanaam Sidi Kaba ñëwoon na fi ci benn réunion bu mu amoon yaa ngi dégg ñu def tout def nañ tout ba rencontré ko jour bi mu waroon ñibbi daf ñu accordé 30 minutes parce que dafa waroon ñibbi avion dafa taxaw. Euh, muy loo xam ne xëy na naqarlu woon nañ ko ci autorité sénégalaise yi parce que ministre bu xasee bay bu demee bay ñëw fii même bu dee réunion sax war na jël benn temps boo xam ne da koy consacrel sénégalais yi parce que mooy suñu ministre bon xëy na dafa ñëwoon nag ci réunion boo xam ne réunion internationale la euh, programme moom noonu la tëddee woon mais fexe nañ def nañ tout ba gis ko te liñ ko njëkk wax mooy ñu defal ñu fi benn représentation diplomatique maanaam ñu am fi benn consul honoraire wala consul général wala dara buñ mënul am ambassade buñ mënee am ambassade nag moo gën c'est-à-dire euh, suñu ambassadeur bi nekk euh, Brasilia aussi même chose Macky Sall bind nañ yaa ngi dégg donc lépp ñu ngi def effort pour que ñu am fi benn représentation diplomatique yaakaar naa dinañ yombalal lu bari surtout ci domaine kayit yeeg ci demee noonu xam mais ci yeneen domaines yi xëy na euh, keroog dégg naa ci benn vidéo gars di wax ne na Macky ñëw. jàppale ñu kërëb kërëb ci kii bi nu mu tudd ci affaire njaay mbedd bi mais Macky Sall bu fi ñëwee njaay mbedd mënu ci dara côté boobu Macky Sall ci dara yaa parce que dëkk dëkk dafa am ay ay ay loi yu koy tëral yaa ngi dégg donc Macky Sall mënu ñu wax ne Argentine changé leen seen i loi pour que samay samay doom jaay ci mbedd mi librement jaay marque comme ni mu leen neexee loolu mënu ko sax xalaatu ko sax waaw te Sénégal sax dañ koy bañ. xalifa Sall am nay temps dafa doon raxas Dakar yaa ngi dégg donc bu ñu ñëwee fii ne di ñaan gouvernement Argentine pour ñun ñu am ko loolu c'est impossible loolu sax buñ ko sax xalaat parce que mënul nekk te du yoon yaa ngi dégg ñi dañoo am seen i loi nañu respecté seen i loi ci kaw respecté seen loi nag mën nañ leen ñaan mën nañ maslaa parce que fii policiers yi tax ñu ko metti noonu yow boo leen respecté jox leen cër bi war policier ne la jógal nga lem say bagage jóg bu ndànk wala nga séen ko muy ñëw nga lem say bagage jóg bu yàggee da lay rus bu yàggee da lay rus boo bu fekkee sax da ne jógal wala da lay ne garaawul xam nga day day gëmm quoi yaa ngi dégg mais bu ñu jël doole quoi bu ñu jël violence bu ñu jël yenn yi par exemple utiliser ko contre force de l'ordre yi fii ci dëkk bi yaa ngi dégg maa ngi doon wax ne Flores saa yi police génnee day metti xam nga lu tax parce que xaw ma daaw loon xaw ma daaw jéeg maanaam am na policier bi ñu fi bu ma benn chef policier ñu bu ma xoo image boobu bër àddina bi seen ministre ñoom ministre policier dafa woowaa immigration ne leen mais yéen situation Sénégal yi nu mu demee nii ba ñuy jàpp suñu policier yi di leen di leen bu ma yu demee noonu quoi mu doon gàcce ci police argentine parce que image bi dafa wër àddina bi ba ñun ñu convoqué ñu immigration waxtaan ak ñun ci cas boobu est donc mu leeral ne policier yi na leen parce que du yoon ngay jàpp policier par exemple di ko bu max wala di ko pousse yaa moo tax heure bu ñu génn Flores rek xëy na day xaw a metti quoi te wax dëgg yàlla buggeewuñu ko noonu waaw moo tax toujours may wax ni nañu nañu respecté policiers yi yaa ngi dégg nañu masla ak ñoom njaay mbedd ñun duñu wax kenn ne bàyyil njaay bàyyil bàyyil bàyyil jaay ci mbedd mi parce que xëy na euh, mbedd mi la am pour mën a euh, survivre yaa ngi mais nañ ko def ak diplomatie ak tey waaw bu ñu la waaw boo nekkul ci yoon bu ñu la fekkee négocier maa newul ci yoon kat ah maa ngi jégul nga lem say bagage dem bett nañ la jàpp nañ say bagage bàyyi leen ñu yóbbu bagage bul xëccoo bagage parce que yow bagage nga yor noonu amul facture te bagage boo amul facture am nañ droit téye ko wala wala des fois marque la bagage su am nañ droit confisquer ko donc ñun ñoo newul ci yoon ci côté yëpp donc nañu maslaa gis nga dégg nañu mas kaw say mel ni mi bari ci nga xam ne dañ leen jàpp ci wala ñi nga xam ne dañu dugg seen place ba ci sax ci kër yi boobu noonu après lan lay lan lay lan lay dikkee nit ki ki ñu defal kaw sa comme ça non kaw sa yi dafa am degré maanaam ça dépend ci kaw sa bu ñu la bu ñu la bu ñu la jox bu dee kaw sa par exemple résistance à l'autorité euh, yu ci bari ñun yooyu lañuy dem xam nga dañ ciy dem quoi mais yu ci bari du doon kaw sa yu yu graw mais kaw yi bu ñu la defee lay benn kaw sa tegalaatal deuxième kaw sa rek day commencé graw ay ay sénégalais yoo xam ne parce que nañ sant yàlla quoi parce que des fois damay dégg ne waa dëkk bi dañoo raciste dañoo def lii dañoo bañ sénégalais mais am na fi ay sénégalais fi am ay kawsa yoo xam ne di ko tegle mën nañ leen ci jàpp refoulé leen waaw parce que ñu ngi fi refoulé fu mu toll nii ñu ngi fi refoulé boliviane yi ñu ngi fi refoulé paraguacho yi ñu ngi fi refoulé péruane yi boo jegewul nag fi affaire yi di xewee doo xam da nga yaakaar ne dara xewul mais ñoom ñu ngi leen di refoulé ndax ay kawsa te ñun ñu ngi def des fois ay kaw yu gën a garaaw yooyu yaa ngi dégg mais Sénégalais yi nañ sant yàlla parce que am nañ fi ñoo xam ne euh, ñu ngi daw ci yooyu ak organisme yi ak kii yi di xeex yooyu pour au moins yooyu bañ fi am yaa ngi parce que am na fi ay Sénégal am na fi benn xaw ma ñaar Sénégal xam demoon nañ ba leen ba am na koo xam ne demoon nañ ba dagg biyam pour réfule ko demoon nañ ba ba naroon ko refoulé yaa ngi dégg yàlla def. Euh, ñun wax dëgg yàlla ñu jóg ak yenn avocats yi ak yenn organisme yi ñuy daw di daw ba ñu bàyyi ko. la mu déggee ak camp am mën na dem ba mel ni Europe. dem ba nit ki maanaam ñu dagal ko béedee la ko ci réewam. mais mën na dem ba am ba am parce que buñ kon buñ bàyyiw li ñuy def nii day dem ba am. day dem ba am te ñun loolu lañu loolu lañu bëggul mu am ci Sénégalais yi parce que ci la ñu mujj quoi parce que li am Europe ñëpp xam nañu Macri euh, idée mooy def Argentine mel ni Europe ngi dégg. donc kuy wut loolu kuy wut wax dëgg yàlla mais daw ko quoi parce que ñoom seen bopp mën nañu envoyé ay policiers ñu ñuy provoqué xam nga mën nañu envoyé ay policiers par exemple ñuy def yenn yi pour provoquer ñu pour ñun ñu am ay réaction yoo xam ne ñoom da leen di jox ay arguments yu leen permettre ñu refoulé ñu wala ñu def ñu leneen ñun loolu la ñu war a daw yaa ngi dégg loolu la ñu war a daw maanaam dëkk jàmbur boo fi nekkee c'est vrai que am nga fa ay droit kenn kenn loolu kenn bañu ko mais nit ki balaa ngay réclamer say droit yow xamal say devoir waaw boo xamee yow looy def rek su kër jàmm man boo ñëwee góor boo duggee sama kër ma ne la fii kenn du fi tux nga taal sa cigarette yaa ngi may tooñ est-ce que dégg yaa ngi may tooñ lu ma neex def la bu ñëwee ma leen dama leen dama ko tere tux mu mu fiy tux yaa boo ñëwee mën nga toog négocier ak man ba ma bàyyi permettre la nga tux est-ce que lépp loo gis rek négociation ak masla boo nekkul ci yoon rek del del del nangu ko yaa ngi dégg nangul ne man new ma ci yoon mais naa négocier ba mu am li ma soxla waaw. loolu jàllee nu wax ci lu jëm ci affaire kayit muy bi nga xam ni moom la ñu am baree bari am na ñoo xam ni jël nañ seen yos euh, dégg nañu sax fan yi ci ay rumeur yoo xam ne mooy procureur bu mënatul wala bu génnee réew mi bu génnee dem Sénégal borom borom du delti loolu it bëggoon nañ ci xam ay leeral. waaw loolu aussi euh, dinaa ci indi tuuti ay leeral. Euh, précaires yi ba léegi amul décret bu gën amagul décret bu génn de ne précaires yi kenn mënu ci dem Sénégal wala demee mais ñu ngi koy commencé bàyyi xel parce que déjà euh, ci yoon bi ay éthiopie yooyu nit ñaa ngi ci commencé am problème pour yegg si Argentine yaa ngi dégg te gouvernement Argentine aussi mu ngi ciy commencé bàyyi xel yaa ngi dégg moo tax ma doon sànq li dafa am solo toujours ñun ñuy ñuy ñuy moytu parce que dinañ dem ba liñ ñu fi mayoon sax. dañ koy nangu am nañ ci droit parce que précaria bu leen neexoon tey ñu ne ñu ne précaria bi kenn mënu dem Sénégal parce que yow boo nee da ngay da daw làqu sa dëkk réfugié nga maanaam da nga jógee sa dëkk da ngay yow daw làqu nga amoo droit dellu sa dëkk yaa ngi dégg mais ñun dañ ñu koy jox ba pare bàyyi ñu dem librement Sénégal duggaat amul benn problème yaa ngi dégg wax dëgg yàlla euh, yombul donc ñun dañu war a xam ni ñu ngi ñuy toléré loo xam ni bu leen neexoon du ñu ko tolérer mais nag suñu comportement des fois mu ñu yóbbu ba loolu yëpp dañ koy dindi parce que boo xoolee précaria yi am nay jamono par exemple nit dañ ci def yoo xam ne mooy loolu xam nga euh, moo toujours damay ne euh, nañ sant yàlla par exemple ñu am koo xam ne au moins mi ngi liggéey immigration xëy na am na yu yoo xam ne buy ñëw sax euh, dañ teel a ñu ñu jël suñu matuwaay si parce que am na ci ñoo xam ne précaire dañ koy passante wala yu demee noonu xam nga di dem immigration diw yóbbu la sa loolu ay délit yoo xam ne ñun dañ koy def sans ñu rendre compte waaw ñoom dañuy xam lépp immigration dañuy xam lépp léegi su ko defee bu ñu xamee lépp dañuy dem ba précaire sax dañuy ne léegi du ngeen ci mën a def dara te su boobaa day compliqué ci ñun. ñu am ci temps benn message rek boo xam ne lañ koy tënk. dana jëm nag ci jaaykatu mbedd yi ak ñi xam ni dañu yor place mu ànd ak ak it. Mhm. waaw pour terminer euh, li ma ci wax mooy di xamal Sénégalais yi nekk fii ne achanamiento yi ñuy gis noonu yoon la maanaam loi bi moo may dëkk bi ñuy def ay achanamiento bu ñuy xool benn euh, bu ñuy investi bu ñuy def investigation ci benn problème yoon may na leen par exemple ñu def investigation jéem a saytu xool donc lu normal la lu normal la te du dagg ñun bu ñu changé wul suñu comportement loolu du dagg yaa parce que ñoom dafa am seen politique bi ñuy mëne boo xam ni euh, képp ku leen ko bëgg a xañ aussi ñoom aussi dañ lay topp jusqu'au bout yaa ngi dégg moo tax nañ moytu ñun ñoo war a moytu njaay mbedd mi aussi bu dee dem na ba wax dëgg yàlla mënuñu bañ a jaay ci mbedd mi nañ négocier di masla parce que amuñu droit jaay ci mbedd mi amuñu droit jaay marque ci mbedd mi amuñu droit sax jaay bagage yoo xam ne amul facture donc bu ñu demee ba koy def aussi nañu masla ñu naxanteeg ñoom comme ni ñu ko fi daan defee bu njëkk yaa ngi bu njëkk danga daan am doo am problème yooyu parce que da nga daan maslaa yaa ngi donc nañ kon ni di def loolu ñu bàyyi jaay doole bi wala xeex bi yu demee noonu amul jariñ yaa ngi ñun lay yàqal ñu yor place aussi ku ci yor place jéemal habilitar sa place yaa ngi dégg booy jënd bagage fexeel ba laaj facture ki lay jaay bagage chinois yi exiger leen ñu jox la facture boo gisee ñu doon laaj ñu doon wax sénégalais yëpp ku ci nekk ubbil sa monitru sa afip ak yooyu di ko fay boo amee sa cuile yooyu boo demee di jënd bagage nga joxe ko ñu defal la facture ëllëg ku la arrêté na la jox ma facture nga génnee sa facture bagage woon ko yaa ngi dégg mais boo yorul facture bagage yi bu bagage bu amul facture bu leen neexee ñu jël ko waaw loolu légalul muy ñu yor place ak ñu yor place ak ñu jaaj mbedd mi yeeg dañoo war a yor seen i ñu essayer nekk en règle ñu moytu marque yi ñu moytu marque yi bon ku nekk yaa xam nan ngay nan ngay fexe ba ba jaay wala yu demee noonu xam nga mais conseil bi ñuy jox pour ñëpp la man pour yow pour keneen ku nekk nga moytu parce que waxoon nañ ko fi dëkk bi dafa xaw a changé mel ni bu njëkk donc nag ci ku nekk jël say précaution yaa ngi dégg nga moytu marque yeeg bagage yi amul facture yi te ñu bàyyi xeex bi xuloo bi amul importance ay xiroo bi ngaay bi amul solo Euh, association bi bi ñenn ñi di jéem a xeex amul solo parce que association moom ma ko fii laa ko fekk yaa ngi dégg ëllëg keneen mooy ñëw toog sama place yaa ngi dégg donc nañ ñun ñëpp Sénégal yëpp jàpp ko jàpp association bi euh, wax dëgg yàlla ñu liggéey parce que ñun nekk lu fi état Sénégal wala keneen ñun sénégalais yi nekk fii Argentine lañ fi nekkal suñu bopp lañ fi nekkal ak sénégalais yi donc ñun ñëpp benn lañ euh, li am li am solo mooy ñun ñu am ci dëkk bi jàmm te ñaan te ñaan yàlla dëkk bi am jàmm parce que bu dëkk bi amee jàmm ñun ñu am jàmm waaw donc maa ngi jégalu bu baax ci wax yi may wax nii xëy na am ñoo xam ne du leen neex wala yu demee noonu mais yaakaar naa bu dëgg jotee aussi nañu wax ne nañ ko nañ ko wax quoi ñun bu toogee suñu biir toujours nañu waxante dëgg waaw bu ñu génnee nag ñu défendre Sénégalais mais bu ñu toogee ñun suñu biir nañu waxante dëgg ñu xool lan mooy améliorer euh, suñu nekkin fii Argentine su ko defee ñu am fi benn ñu bañ fi am benn problème. li xew Europe bañ fi xew waaw maa ngi gërëm ñëpp leen sant te aussi di leen fàttaliwaat aussi li ma waxoon ci commencement bi parce que aussi affaire bu am solo la euh, mooy ndaw si nga xam ne moom la yàlla jël ñëpp ñëpp jàpp ci waaw ñu ngi ñaan ñëpp ñu jàpp ci dëgg yàlla ku ci nekk joxe sa participation su ko defee ñu mën ko delloo réew ma waaw maa ngi di leen sant. jaajëf ñu